di nuyu senegal mbokk xarit ak soppe ñépp euh, gis taxawaayu ñëpp nag ci waali ndax waali doomu réew mi la mm-hmm. te kii mu ñàkk ñun ñëpp ko bokk ñàkk muy sunu mm-hmm. wayjur bu jigéen boobu ñu ñaan yàlla saa borom xare ko aljanay firdawsi ak képp kum fa fekk ak ña ko fay fekk ci barke Seydina Muhammad di ñaan yàlla yàlla teg loxo njaboot gi may waali xolu muñ mm-hmm. xam tey moom bisu njàqare la xam naa wax du bari. Mhm. te day xaw a metti mhm. waaye bon saa borom moom lu ko saf mu def. Mhm. lu ko def lu ko saf rek mu def. te nag kenn sañu ko ni pour quoi comme ni ko Papa daan waxee. donc yàlla na ko saa borom yeesal na ci kawam. amiin euh, mais mu doon doonoon mu doon nit koo xamante ni nit ku baax la nit ku discret tey Wally ñàkk koo xamante ni dafa ñàkk way juróom bu góor ñàkk. magam bu jigéen ñàkk ki nga xamante ni moo nekkoon wéeru waaye moo doonoon léppam est-ce que dina yomb ci moom euh, ku ne xam na ni bay Fall la. yàlla moom du fi jug. Mhm. te buy sàkk du tàggoo. Mhm. buy jëlit du tàggoo. te ñëpp dañuy dem moo fi des cundum. Mhm. kon moom rek a fi des. ah kay dina metti nag. waaye yàlla nu yàlla taas ci barkeem ndax li mu am nii ku ne bëgg na ko. ci boo mhm. dëddoo. Mhm. taxawaay bee ñaan geeg sell geeg lépp. Mhm. waaye yàlla moom du fi jóg. waaw man bis ni ki tey euh, la ma jaale woon sama soxna comme ni ma ko waxee. tey la am un kon suñu borom lu ko saf mu def. bi muy ñëw di ma jaale si fooguma woon ni at mi du ko fi fekk. rawante at lañu rawante donc. saa borom lu ko saf mu def. ñu gis taxawaayu artistes yi monde showbiz ñoom ñëpp ku nekk ñëw apporte soutien ki nga xamante ni moo di magam wala rakkam ci Wally ko sekk mu mel ni euh, lii dafa war a sax continuer dàkk euh, ci millier bi nga xamante ni moom la ñu ne. loolu moom xam naa ni ci beneen jamono danañ ci wax waaye li am solo ba solo mooy. tey bisu njàqare la bisu jaaxle la bisu ñaan la comprendre nga. Mhm. ndax. wolof dafa am lu mu léeb mm. dani loo xamante ni bii boo ko déggee ci sa nawle mm-hmm. mu métti la métti la te kenn du la fa jiit mm-hmm. fexeel saxal loolu ca moom mm-hmm. c'est très important donc leneen lu ci des nag saa borom du fi jóg te moo fi ne moo fi ne sëñ Fallou xol bi dafa fees ne moom wax day metti ndax tey bisu njàqare la bisu ñàkk la te bisu ñàkk nag moom dafa xaw a doy waar te xam nga waali nag wax dëgg yàlla dañ ko war a ñaanal xolum muñ parce que ñaanal ko njaboot gi <coughs> waaw sëñ Fallou yàlla baax na waaw. mooy li ma wax rek ma way jur la man suma xarit la woon ndax daf daan wax ne.

jël suma teel mi ngi noonu jàll si xaritam wàllu sekk per jël suma teel per rek ci sa taxawte jërëjëf waay buuba mbuub mbuub mbuub mbuub waaw kooku buuba yëpp nguurub yàlla te yàlla mi ko taawul Papa Thione taawal ko Kiné Diouf Diaga bañ man koo meññ yor ko ba muy taxaw yàlla moom moo fi te jógu fi kon na doyloo yàlla te wàkkirlu ko rek yàlla rek fi nekk sa diggante ak bi Kiné Diaga ñu bari gis ni am ngeen ay relation yoo xam xam nga moom moom dafa nekkoon man sama yaay particulièrement parce que bu yàlla dogalee ma amoon ak jaxasoo ak waali ñuy liggéey ñun ñaar jaxasoo jaxasoo bu am solo macha allah moom dafa nekkoon ci diggante bi doon koo xam ne ku ma doyloo la woon ci lu bare bare bare muy jigéen gu baax xam nga li liñ koy ñaanal rek mooy yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam jullite na maandu na bëgg na ñëpp te ku mas a fénqool digal na la lu baax ba boo ci jógee am njariñ donc yaay ju baax la yaay la daal en suma doo dañ koy ñaanal rek suñu borom yërëm ko te xare ko aljana jërëjëf jërë ngeen jëf ci géej gi gaa lañ soog si sa yàlla na ko yàlla xaale àjjana xel xam yaa ngi seen bëgg naa am deux mois rek ñu sànni donc mën na maa bañ man ma jàll yéen tëru leen fii Kéba ñu ngi lay la mosal di la jàllale. am bamba ana bu ngeen ko sama jàpp Bamba am. yéen daal yéen fexe leen man man Kéba Seck ba ba ma wax ak. non non non.